alarba jee ca sa sin jantam ba mel na ni jee ca wam sa sin bisam ba alarba jee ca sa sin jantam ba mel na ni jee ca wam sa sin bisam ba yusuf keroog mboolem lu doon gaal jeeri wax na jëm këram ga ndaw lu biire xel ya gëlëm xol yëpp maase tàng rankoñ yeyul di tuuru cër yi ràgg wote ak wotiir yi njooxe jëm ci këram yàlla bu mbir yi sooxe murite kub xaadira kub tijaano jëpp ko jooyo aka saa sultaano sëriñ falliloo njaqare tabbi ca xol fuguraas ngir ak dem xarit bi seetal mbiri njëndem yu mag ya fa alub Tuuba jooy nañu ngir xam ni moo di sang ba bisub keroog ka wuutu tooge jal ba ju maandu tabe ak taaram ba moo ñëw këram taw ba jox ko mbir ya waa Mbàkke ñëpp teew di seede mbir waa kër Sëriñ Tuubaa ñi waaru bisub keroog dankooñ yooyu yul di tuuru keroog Sëriñ Seex Mbàkke Sayfuddin sëriñ Cheikh Mbacké sayfu diine ewen mbir ya jooje waay du cuune nee nañ bisub keroog lay xëy di woote waa kër ga bég lool ndakate nar na joote wér naa pelek ku ne na dem ci soxlaam sorser yu laab di jokkante ay kalaam bisub keroog dellu na wat luy naanu lewiweem bi sang moo kee maanu folli ya garab ya def mbaar ca diggam ak jumaa doy na mag waar bu dara dox fi saa digg ak Cheikh wax keroog ndakatalëm na biir ba dal ni murit yi ngeen abal ma tuuti laaj laaj ko turo ka mu jawoote bañ jëllu seeñu fekk mbër ma soonu ni jell mel ni dafa yëg ab coono ndekete woo juddu lilaayil xaalibuun ganaawu nañ fabruga yóbbu xiliin riñ falliloo bisub keroog li xew ci xeeti xar baax kenn mënu koo lim gëm koo doy naag baax guddik alal ba lañ ko rob fa fa penku am di Mustafa baayam ba fekkoon na kees ga wutaloon yaaram ba def ko ca biir yóbbu ko Tuuba bis ba ma mu dencoon ndindi moo ko gaaral ca yooya fan ba kër bañ koy waajal moom lañu fab def ko ca baayam def ko fa penkoom rob ko fa penkoom tuuti moo bari ndam ñettew bisub keroog di waajal mbër ma kenn man la xam seen lim baraw na xayma rakam sëriñ Abdou Lahat ba sëriñ Suhaybu Mbakke may santam ba ak sibtu bamba doomi am di moustapha doomi sëriñ basiru mbàkke moustapha waa kër sëriñ yaafe ak daaru salaam waa daru muuti ñëpp malaam ànd ak yeneen góor am ay maana waaye di lim day waral ab coono sëriñ Suhaybu Mbàkke doomi bamba kooku julee saadix la gëm na bamba Cheikh Modou Xabaan xaritam di waayam xolam ba jeena keroog ngir ndiggam nijaayam bisu keroog mboolem mboolem lu doon malaaka yàlla yabal na leen ñu war hunaaka malaaka aljana yaa koy sargal naa ko maraban xawsul wara di màggal sëriñ falliloo mu xuuse njéende ba wey daaru salaam dëkk ak yu mag ya rabbuna salaam ridwaanu wubbil ko yulli yëppay xelli misik ba jip gët ga daldi sàll bisub keroog mboolem lu doon malaaka yàlla yabal na leen ñoo naaka aljana yaa ngi sargal naa ko marhaban xawsul wara di màggal mu xusi njënd ba wey daaru salaam dëkk ak rijaal yu mag rabbuna salaam ridwaan wubbil ko yulli yëpp ay xelli misik ba jëpp gët ga sàll di sàll bisub keroog la am fa pencum tuuba ginnaaw robam ba ñuy defar barab ba kenn desatul góor ñaa jigéen ña booloo di yuuxu tey wer weri maa ko wóolu sëriñ Baye Saal Sadio maam jaara bu sama ca Poroxaan mbooloo mi loxo ci kaw ñu màggal Fallu ko def gudd fan nii rek sëriñ Fallu la saayir musulaam fa mbàkke ñëpp a ngay ser degam sëriñ Falilu sunu saadix ba mu gënitu ba fekki say xibam ba dara du sax ku yebu far wakiirlu di jaamu yàlla tey nangoo góor góorloo dara du sax ku yebu far wakiirlu di jaamu yàlla tey nangoo góor góorlu dara di jaamu yàlla tey nangoo góor caama wasasin la feeñ patu baal am na ñu naa daaru salaam la boobaa ca mooma at la mbër ma génni daaru sañ si si ñëpp waaru aljuma tey Kazu Rajab la takku jundi ko mbër may bàkku nee nañ keroog daam dani buñ ko nampal fiig jant bi buñ ko jox toqantal bisub keroog wax nañ ne rasulullaay ñëw na fi ngir juddoom gi doona laay inni ya abdullahi moom la isaa waxoon di bim jureel gaaraw na buusaa burbam dewoon bam mën a waxta mi mur moo mën a def keroog sëriñ falilu mën a woor amul lor bi ka taway naa maaloon nastaaxu allah alayka al akramul ba bis ba dellusee ñu daldi koy ngénte làmp ne liir bi dana toog bay àtte sëriñ bu mag ba moo ko tuddee faadilu mu yor nganeel ya doon faridun kaamilun cheikh bamba ab ju njëm du moy ni faadilu ba noppi may muy maf doolu mbaa muy jaayilu mënula am bu kenn werenteeg baaxam walaay xam naa ni sëriñ falilu moo dib yaaram wàllu ndeyam bawoo ca waa bu soobee ay sërif lañu bila yoobi wàllu ndeyam bawoo ca waa bu soobee ah, te ay sërif lañu bila yoobi ndeysaan ca ay sëriif la noo bilaahi roobe Sëriñ Fall walu ndeyam ba woo soobe